digal borom ñaari jabar. amoo droit conseil. waaye yow tamit borom benn jabar dina conseiller borom ñaari jabar. déedéet. ah li mu saf ki ko ma te ko xam mu yor benn soxna borom ñaari soxna am problème fee mu ñëw naan ko nii ngay doxalee ñeme na ko. waaw mën na am xel bu rafetam. ban xel bu rafet ci naka. da koo xam munu ko. munu ko. Mhm. waaye yow tam am na eh, question eh, bu nekk sama xel bul ma fontoo am na question bu nekk sama xel. ban question. ma laaj la ko dama ne question boo mën a am. dama ne borom benn soxna mënta atte borom ñaari jabar. ma laaj la ko ma laaj la ko borom benn soxna mënta atte. waaw yow ma laaj la ko la mën baaj la laaj. waaw yow mën ngaa yow mën ngaa atte wala mënoo atte. dama ne. dama ne. sañoo toog man lay waxal kay da ngay toog man man waaw mën naa ko kay. waaw waaw mën naa ko. yow de yaa ngi koy waxal waaw mën koy waxal. xam xam léegi loolu dama dama sama fu. sama fu sama yoon nekku ci. waaw man dajale naa ñett ci kër. mais moi j'ai pas dit ça j'ai dit est-ce que yow mën nga ko lijjanti. bul ma posé ci question boobu waaw eh, waaw damaa bëgg nga posé ma loolu parce que daam man dajale naa ñett ci génn kër barke borom Tuubaa billaahi wallaahi mais tu me réponds par oui ou non dajale naa leen ci génn kër non mais nga tontu ma par oui ou non man maa toog ba léegi maanaam bëggatuma aw ay waaw waaw waaw bëggatuma aw ay waaw waaw eh, déedéet man kay tëju ma li ma maa ko bëggatuma aw ay waaw waaw waaw damaa bëggatul aw ay waaw damaa bëgg maanaam damaa bëggatul aw d'accord Père Mbaye Ngoné hmm? calme-toi ñu xam nañu sa dama ne li may wax man maa ko tu vas t'emporter pour rien calme-toi ñu andi la ndox am yow dafa wala les frais man man lii ma la wax man maa ko wax yow ñaari numéro nga yor xanaa nga ne lan ah waaw ah, waaw lan moo tax benn bi ma di ko wax. d'accord père léegi xam nga nan ah, la ñuy def ba am lancel ma ko. du ma la lancel dara nag keroog keroog keroog koo saa. alhamdulilah xalaat fu nañu naa am lancel ma ko. Ah, balaa ngay dugg ci yëf day fekk nga maîtriser ko. dafa franchement. non bien c'est daa xamu ci dara. yow yow li ngay wax fii yëpp yow. non non parce que après tu te concentres pas. yow li ngay wax fii yëpp yow benn nga yor. léegi on parle de polygamie. en droit à problème maa ngi ñëw. kay dama ne. Hmm. yooyu baal ko rek baal ko xajal ci moom lu may baal ku muy baal on parle de polygamie un droit à problème. ñu dem nga ah, introduire ku muy baal. ñu dem nga introduire ñu dem nga introduire Dieye Massamba ñëwal man ay wax dëgg yàlla waaw man kenn du may indil problème. yër du daw ñëwal yow. <laughs> waaw waaw ba bëgg ci yër du kay daw. <laughs> waaw man. la polygamie est un droit. <laughs> effectivement pour tout. ak téléphone bi. papa RFM la wax. lan lan lay wax yeggalil waaw bu ko mën bu ko mën. walaay jéeg. wala non bi kiwul. bu ko donc euh, mais li tax mu complexe mooy. <coughs> je vais commencer d'abord par dire que mën nañ ci wax fii ba àdduna jukki. Mm-hmm. waaw mhm. continue c'est prospère donc euh, mu nekk loo xam ne. Mhm. Euh, comme ni ma ko waxee mën nañ cee waxtaan ay at. yéen nee na mën nañ cee waxtaan ay ati ati at ndax <laughs> polygamie dafa nekk thème boo xam ne à chaque fois heure bu ñuy wax rek. Mhm. dina am loo xam ne dañ ko ciy jàngat. parce que euh, situation la boo xam ne c'est pas très évident pour tout le monde. waaw Dieng. waaw. Mati. donc mu nekk loo xam ne nii. effectivement comme ni ma ko waxee droit la waaye nag. su ma yeboo ne droit la bu ànd ak piège. piège li tax mu ànd waaw bu ànd ak piège waaw boo ma dégloo rek ma ñëw. piège bi ci nekk mooy dafa maanaam dafa conditionnel. <coughs> loolu tax mu am piège. ñaaree boo déggee conditionnel rek. Mm-hmm. piège a ngi ca biir. wala maanaam dëgg sërëx mm-hmm. parce que li tax mu nekk conditionnel mooy. Mm-hmm. dafa ànd ak man-man danga koy mën. ah mën wax. waaw ku góor ki. da koy mën. ku jigéen ki mm-hmm. da koy mën a dékku mm-hmm. donc ñaari côté yëpp mën-mën lay doon <laughs> mais li tax mu nekk effectivement un droit à problème parce que man dama jàpp ne ku góor ki nga xam ne mën na ko daf koo war a mën ci ñetti ñetti fànn da ko war a mën ci bopp muy xel mu yor ñaar ñett ñeent jabar mm-hmm. benn ñaar ñett ba ñeent xel mu ko yor xel waaw parce que boo matadee doo ko mën mooy li nga mooy li nga juñu sànq rong si bii ronget ci bee bee ko rajax lu xew fee loo loo xëyee fii mu fanaan fee loolu am xel koy def maanaam nekk un vrai manager soo ko soo manqué ci xel doo ko mën soo manqué ci doole muy poos doo ko mën ndax da war a yemale n'est-ce pas donc euh, loo loo defal doo def fii def ko fee maanaam say def def yow warul mën a am loo xam ne dañuy nattable ndax da ngaa jéng waaw wala déet mhm. beneen mën-mën bi mooy mën-mën ci doole. Mm-hmm. mën-mën ci doole ñett yooyu pour man c'est c'est trois choses fondamentales. physiquement. physiquement. Mm-hmm. ndax doo aye ci mas euh, doo aye fii. Ah. fe fegal fii. bëgg a def fii dortoir. waaw day indi problème. waaw am na nag léegi loolu la gars yi di def. exactement ndax mënul man ma jàpp ne dama ci doole sax beneen quatrième. Mm-hmm. muy boo demee ba yàlla def effectivement nga mën ko. boo leen xaajaarlee mooy li gën. boo leen xaajaatlee soo ko mënee. waaw déggoo ma ne boo ko déggoo falaa njëkke mhm. ak dégloo nag. Mhm. dama ne soo ko mënee. Mhm. nga xaajaatle leen mooy li gën. ndax. bari na déggem sax ñi bokk ndey ak bàyyi jóge ci benn biir. ñooy ñooy xiiroo ko ŋaayoo. ba ku nekk yàlla may la sa këru bopp ngeen di déggante maanaam yóotuwante xëy na du ma ne dina régler problème yëpp waaye dina dina si régler lu bari loolu mooy euh, côté góor ki nga xam ne loolu laa jàpp ne yii nii boo ko remplirul et forcément ay problème lay doon mhm. mu nekk maintenant lan moo tax mu nekk maintenant problème ci jigéen ñi mhm. euh, te foofu sax laay gën a appesantiru pour la bonne et simple raison comme ni ko waxee sëy droit la tey boo xoolee Sénégal association féminine yëpp mën nañoo xeex lépp droit de nii droit de la femme droit au travail droit ceci droit cela ba koo xam ne boo ko xore boo ko boo ko boo ko rombee kaata ko sax ñu ñu jóg taxaw prier def conférence de presse ne violence faite aux femmes mm. mais cette ces mêmes femmes la ñooy taxaw ma jël exemple peut-être Sophie parce que moom laa jàkkaar lool yàlla dogal ci moom muy bëgganteeg koo xam ne am na jabar mu pare pour wujje moroomu jigéenam ne ko du ci dal te droit la pourtant maanaam droit yi ñuy xeex yëpp droit au mariage bokku ci seen moroomu jigéen mu nekk paradoxe ci man jaaxal ma jigéen ñi mën nañoo xeex droit ya ba mu def seen moroomu jigéen bu am droit o mariage gis ku ko bëgg ci fulla ak fayda mu takk ko mu war a nekk ñett ñaareel wala nekk ñetteel wala nekk ñetteel moroomu jigéenam ne ko du ci dal te pourtant droit la comme yow ni nga amee droit yow ba nekk aawa yow noonu la deuxième bi amee droit au mariage la troisième idem la quatrième idem mm-hmm. mu nekk paradoxe boo xam ne comprendre ma ko mën nañoo lëngoo xeex lépp ba mu des bokk jëkkër. loolu nag lañ koy lëngoo ñoom pour xeex ko. waaw parce que do femmes yi nga xam ne ñoom dañu dañu victime dañu dañu victime ci ci ci ci poly polygamie mm-hmm. mais ñu am droit ñu xam sensibiliser seen i moroom bu jigéen. Mm-hmm. ne kii elle la droit au mariage. Mm-hmm. le mariage c'est un droit. c'est un droit. elle a le droit d'être deuxième femme. c'est un choix. elle a le droit d'être troisième. elle a le droit d'être quatrième femme. oui je comprends. waaw tu comprends très bien ce que je dis. non parce que mënuma association bi lan moo si seen yoon. non mais lan moo seen yoon ci man man man man ma ma takk Sophie Gueye xuri euh, ko man. lu si seen yoon non dafa bëgg expliquer ne bu ñu constitué wu en groupe di xeex ay droits yoo. exactement xam ne jigéen ñi la. waaw war nañu mën a xeexaale droit wu ku jigéen ki nga xam ne amul. mu mën a sëyi moom itam. exactement pour xeexal ko mu dem am jëkkër. am na yow attendez kooku c'est personne non non euh, madame Diallo. waaw ah. madame Diallo. waaye mënoo ko ne waaw. man mii maa la borom dëj bi mën na ma kaa jooy. ayca eh, ayca dama ne dama ne dama ne. lu yoon ci loolu lu si seen yoon ci man mi takk Sophie Gueye bëggal teeg moom àdduna dox tey effectivement ba ma ba ma ko lu si yoon parce que boobu violence la waaw violence tey tey doo ko fi séyee du violence déedéet mais il faut être conséquent toi il faut être conséquent tey doo fi séyee tey du violence non non non fekk sa non attention man non abon ba comprendre père lan laa comprendre prof ma c'est pour comprendre aawa aawa sotti na sotti na sombi deuxième ah. fois moom du violence. violence la. alors c'est ça que je dis. waaw violence la. alors ah. donc autant. Uh-huh. autant ma ma ma sama jabar. Hmm. violence la. waaw autant bi sotti jël goom sotti ñaareel bi. violence bu oh, donc Ben laisse introduire et je veux qu'on conséquent. dans ce que nous disons ma wax encore une fois ne. ki nga bundu xataal ne doo ko fi sëyee elle a droit au mariage. parce que tout le problème se situe là exactement par contre fi ma d'accord léegi ak yow quand on parle de dóor jabar dóor jigéen nga ne non amul lu war a expliquer loolu mhm. boo demee ba jàpp ne dóor moo ci des ak yow bàyyil mu dem mhm. d'accord na ak yow mhm. ci loolu autant noonu laa d'accord ci amul luy expliquer war doo lañ set amul luy expliquer ordoo jaas amul luy expliquer baxal acide. amul luy expliquer dugg ci sëriñ di liggéey. boo mënatul bàyyil. ñu xam ne au moins. yow bëggatoo. ak mais moom laa wax léegi ah. père déggoo ma dëgg ma ne dara expliquer lu oddoo lañ set. Ah. oddoo jaasi ah. oddoo paaka kay. ku wax yooyu kay doo bàyyi la donc dama ne. dara expliqué wul. Hmm. doo ko fi sayee tey. Hmm. et ki nga naan doo ko fi sayee comme ni ma wax sànq. sa moroomu jigéen la am droit au mariage. et quelquefois même quelquefois jigéen dina taxaw euh, am wujj jaral ko moom bakkenam alors que moom euh, nu mu euh, ci ci ci ci polygamie la juddoo. la. ça finit pas. su ma comprendre li nga bëgg wax. mooy comme ñaari bokk jëkkër. waa kenn ki def kenn ki lu metti. waaw association yi dañu war a jóg dal si kaw kaw. waaw ah oui d'accord na. voilà moo tax ma ne soo ma dégloo di nga comprendre. ah ok exactement. ba pare ñu di ko waxtaanee. Mm-hmm. ah di waxtaanee ne. parce que contexte cult socioculturel et religieux bi ñu nekk la ñun. dañu nekk ci dëkk boo xam ne. loolu loolu lu légal la fi. donc ñoom seeni biir en défendant les droits des femmes. encore une fois jë ki ki amul jàmm ci sëyam parce que deuxième femme la am na droit sëy. Mm-hmm. foofu laay waxee man boo tax boo ma dégloo di ma comprendre et encore que. pour war na la manque de conséquence benn pourquoi mu nekk de sources à problème yow da ngay nekk quatrième femme yaa ngi dégg Masamba am jabar Masamba am jabar mm-hmm. labat la nga xam ne bi ngeen ñaari femme mu labat la nga xam ne bi ngeen ñaari femme mm-hmm. ngay ànd ak moom restaurant di ndekki di di añ mm. nga xam ne bi ñaari femme mm. maanaam instant bi ngeen añ yéen di commandé xam nga ne kii ma toogal bàyyi na ñaari jabar kër ga jëkkëru jàmbur la jëkkëru jàmbur la mm-hmm. Mm-hmm. nga nangu mm-hmm. yaag moom yaag moom yaag moom ba alxayri jib mu lonk mu lonk quatrième nga ne ko du fi daal c'est une malhonnêteté intellectuelle c'est une malhonnêteté viscérale maa la wax loolu man et je pèse bien mes mots dépend lan la wax faatu non waaw loolu bu la joxee parole nga wax ko yow dama ne ak ah, loo ko mënti wax parce que kooku du ay wax benn ay jëf la ah. je suis avec Prosper bàyyi na ñaari jabar mm. ku nekk amal na ko fukki doom muy vingt mm. ma jàkkaarloog moom nii ñu commandé suñuy coof girgee commandé suñuy og dog commandé loo xam loo xam ne ñu commandé di bëggee mu leer ma ne kii toog ma man jàkkaarloog man bàyyi nañ fukki vingt vingt doom ak ñaari soxna këram mm. ma nangu yaag moom yaag moom yaag moom ba alxayri amul problème ba tey ndax yaa fekk si mu loo ko quatrième femme nga ne ko du ci dal waaw li ko li ko tax li li ko li ko jàpp ba mu bàyyi aawo bàyyi ñaareel. yow nga nekk ñetteel mais moo fi indi quatrième. mais loolu yëpp mooy li ma wax rek li ma bëgg a wax ne manque de conséquence lay doon parce que manque de conséquence mooy nekk troisième femme di fiire yow ñeenteel. li ngay woote bu doon dëgg ci yow doo nekk troisième femme mu vie maintenant euh, gëm yàlla gi. mooy li may faral di wax quand nous sommes dans un pays où tout le monde fait semblant moom laa tuddee le Sénégal le pays du faire semblant on fait semblant même de croire à Dieu quelquefois parce que bu la arrangé tu fais allusion à soo la arrangé wul nga def ko ni mu la arrangé yow li ci des nga ne yàlla baax na yàlla yërmande na yàlla kooku bari na parce que euh, droit boobu yàlla moo mooñ góor am nuñ ko mooñee c'est pas fortuit donc hasard yàlla daganal ko ci góor te dagalu ko ci jigéen am na lu tax je parle sous le contrôle peut-être de yaa Seyda yàlla ñun sax góor ñi ñun góor ñi yàlla sax bi mu ñu bi mu ñuy bi ñuy dig daf ñu digaale ulul ay di nee na ñun bu ñu demee àjjana ku nekk da ci am miin waroon ngeen ñam wujje de yéen. ah waroon koo ñam de. ah moo ñu ko dig kat. te waxi yàlla nag yow ah man du ma ko dingat yàlla moo ne góor ñi laa xam na ma ne waroon ngeen a ñam wujje laa wax yéen tam waaw waroon na ñam kooku kooku ñam wujje seen xol attanu ko waaw non de loolu ngeen wax ni kooku yéen yàlla moom yàlla ah? yàlla lum ñu dégg ay ur ay ni xam nga ur ay ni jigéen ñi nekk àjjana ñun ñëpp ci nekk yow mi da ci am mille man ma am mille père am mille maa ngi dégg oustaz euh, euh, Aliou Sall. maa ngi koy mën a am mil te ñeent rek nga droit am. waaye dégg dégg loolu ci rek ñeent yi. dégg lu wax la au paradis on parle au paradis la ñuy wax dégg oustaz Aliou Sall di wax naan man ma am mil yow nga am mil kii am mil mm. oustaz li am mil yàlla sax bi mu ñuy na bi xiir ñun ci ñu ko urul ay na la ñu di àjjana. waaye du ñëpp de. ah du ñëpp de. mais non man wax yàlla la naa am du ñëpp. ma du ñëpp ay am si xóoru xay. waaw mais évidemment ñi dem aljana bien sûr. ñu fay lu ñu doy ñëpp doon am yàlla du ko digi bëgg bëgg ñu bàyyi lii. yomb rek. Ah, yow bokk ci yow. yow que li wér te wóor mooy. maa ngi bu ko neexee bu demee mu gàdd ay. déedéet xaaral maa ngi yow maa ngi yow bu fa daje woon. dama ne bu àdduna doxee ban daje fa. say 1000 wër la samay 1000 wër la. Oh. doo ne ma ça va jëlal 999 yi. su <laughs> boobaa da ngay mën da ngay mën doo soxla doo taayal. parce que xale lu góor ngay doon doo màggee. da ngay mën de mënal fii ba pare. da ngay mën su boobaa. Ah. su boobaa da ngay mën doo doo tële. Oh. doo kii doo. leer na waaw loolu yàlla ko benn. perte nga am 1000 wër la da ngay nekk xale lu góor tukki la. da ngay nekk xale lu góor ngay doon doo màggee. yow nga am 1000 ay yow. mu am ah, ah. man yàlla ah. c'est-à-dire li ma bëgg a mooy. Uh-huh. li ma bëgg a mooy. ni yàlla moo ñee góor. yaa ngi dégg. Mm. ba dig ko loolu sax. waaw ne ko su su su yow ma xiyaamee urul ay nit maanaam mm. fa taar yam ci jigéen. Mm-hmm. ku si nekk di nga ci am minimum mille. mille yow leer na ma ne bu ñu fa dajee yow nga am mille doo dem booy jëlal neuf cent quatre-vingt-dix-neuf bi mille ak yow mii. mais bon. li ma bëgg a mooy sa cours gi day baax. <laughs> day baax. waaw doo tële. kuur gi. kuuru kan. ban kuur mooy baax ban. kuur gi. waaw ah d'accord mais kañ man bul ko jàppale si man. day baax. waaw na baax. waaw te su dee kii la su fekkee ñeent ñeent ah. am na ci ñoo xam ne. Ah. da ngay kay kay doo mën a dem. Ah, doo mën a dem lan moo tax nga ne léegi soo kee fee def li nga mën. dem fee def li nga mën. dem fee bu day nekk problème. waaw day nekk problème. voilà foofu laax man la ku sa kuur gi day kii. donc donc. waaw loolu la pour pour pour pour la parole. ma wax rek ne forcément euh, ay problème lay doon ba àdduna di tukki. par manque de conséquence aussi bien góor bi ci dugg te mënu ko. et quand je dis mën waxuma rek sur le plan financier je parle des quatre conditions réunies maanaam da nga koy mën ci doole mën ko ci xel mën ko ci poos mën ko sax waa poste bi moom mooy sax nga séparer leen su fekkee ne da nga jàpp ne lii sa droit la waaw même bu réglé wul problème yi à cent pour cent dina leen atténuer xëy na ba bu ñuy yóotante n'est-ce pas xëy na sax du du du du du du du téye bu ñu dajee ci xew sànnante ay flash sànnante ay ay baat parce que affaire jigéen la mais ba tey c'est le moindre mal beneen bi mooy jigéen ji nga xam ne effectivement jàpp na ne kat moom jigéen la jullit la mm-hmm. ci lislaam la juddoo màgg ci ñu yeroo ko ci nàmpatal ko ci ma sàmba takk ko wala ma demba wala moor xuma takk ko mu leer ko ne moor mii kat mën naa am ñaari jabar mën naa am ñett mën naa am ñeent d'ailleurs sax damay dégg léegi sax jigéen ñi di wax naan comme l'a si bien dit Sophie l'autre jour euh, bu ma juddoo man ci contexte boobu du ma du ma du du ma bett mukk sama jëkkër am beneen jabar ñaar kay fa nekk ma am honnêteté ak sincérité mën koo muñ toog sëyal ko wala ma ñàkk koo mën a muñ ma takk samay dëbës duma ci dóor du ma soode du ma gaañ du ma sëriñtu du duma du wax lu ñaaw donc loolu laa gëm ko man. jërëjëf voilà merci beaucoup Dieye Massamba. Euh, ñi ngi waxtaanee polygamie yaa Seyda. mu doon list mu doon loo xam ne dañ ne un droit. donc yàlla moom moo ko jagleel góor ñi. Mhm. ñu war koo mën a def su fekkee ponk yi nga xam ne di nga ci ñëw léegi. Mhm. réunir nañu. ci ku góor kooku pour mu tax soxla ñu bëgg nga ñëwaat ci ponk yooyu. parce que ah. ci am solo ñu leeral ko. lu am mhm. solo la. Euh, pros fi mu daanale rek euh, mooy li nga laaj mooy question bi nga xam ne sax moom nga laaj maanaam euh, ni yàlla defee góor ñi ñoom ñu am droit takk ba ñeent mu nekk seen droit ñu nekk ay jullit yàlla yàlla may leen may leen loolu mais nag bi mu leen ko mayee ba pare dafa am nag loo xam ne da koo gàll ci seen ci seen ndodd pour que loolu ñoom pour ñu mën koo mën koo def xam nga yàlla dafa maandu bu màndu la waxul rek takk leen takk leen non non ndax adduna bi daf ko organiser ndam Sénégal nag parfois da ngay gis góor bu am benn jabar ñu topp la takkal takkal takkal takkal bien vrai que baax na takk ci jigéen ñi jaaram ci yàlla yooyu yëpp rafet na yàlla bi moo wax ne takk aussi dafa am ay règles yoo xam daf koo teg mhm. dafa ne mën ngeen jël ñaar mën ngeen jël ñett mën ngeen jël ñeent am na ñuy wax sax ni yàlla bi muy wax commencé wul ci benn mais ci ñaar la commencé mhm. kon góor gu nekk war ngaa mën a ñaar loolu ñoom seen déggin la loolu moo leen kii mais li am solo te am solo mooy ñun parfois dañ koy defee ni mu ñu neexee. dañ koy hmm. ni mu neexee. Hmm. mais duñ ko defee ni ko yàlla waxee. Hmm. parce tam gis na ñooñu sax yàlla xam na leen nee na afatuminuuna bi baadil kitaabi wa na bi baad ndax yëf yi da ngeen ciy taat li nga xam ne moo leen arrangé ngeen jël ko li nga xam ne arrangé wu leen ngeen sànni ko boo xoolee réew mi sunu Sénégal gi ñu ne góor ñi nga xam ne dëgg dëgg dëgg. man nañ fee yor ñetti jabar bala ñaar boo duggoon ci kër yi ci bëri bëri dangay gis ni lu ci bari def nañ ko mais manuñu ko ñii manuñu ko ñii toppandoo moo leen ci dugal sama xarit takk na ñaareel comme ñoom ñun ñaar ay xarit lañu am na ñaar man tam damay takk ñaar damaa bëgg a dellu samay 18 ans gis nga mm. ñii dañuy fawee seeni aawo mm. ba seeni aawo jeexal ñu jóg daal ni damaa bëgg am xale bu ndaw boo xam ni daf may toppatoo ma beesaat te ki ci kër gi li nga ko jox fleur bu verte la woon mais tey lax na léegi nag li ngay def mooy xool koo xamante ni dina ñëw ci kër gi yow dundal la fàtte nga kii bi ñu la koy jox dafa dundoon ci say loxo la deewee léegi yow li ngay lijjanti mooy dem uti koo xam ni yow dafa lay defar yàlla nag loolu taxul woon mu wax ni góor ñi jël leen boo dee xool ci wàllu financièrement da ngay am da ngay gis ni Sénégal ñu ci bëri mënuñu ko